de dem nga bay ma man way naa laay yow de wetal nga ma man way naa laay yow de dem nga bay ma man way naa laay asalaamu aleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alaaj waaj seetaan naa ko. yow. te terminé. <laughs> commandant bi seetaan naa ko. alaaj ci loonee. maa ngi nii sant yàlla bu baax alhamdulilah alhamdulilah. Hmm. waaw waaw tubarkalla. Eh, naka weekend bi moom. waaw waaw waaw neexoon na. tubarkalla bakkan na eh? waaw waaw waaw tubarkalla tubarkalla neexoon na lool tubarkalla donc. ah neexoon na. ah tane woon na daal. ah tane tane na. Mhm. an sa patron mu. <laughs> man de dégguma ko fenn weekend bi maa feebaroon te woowuma sax. loolu daal. xaw a xaw a sonn <laughs> bu fi grippe de grippe de dañ koy kale ci <laughs> dégg ne ko doon. grippe dañu bañ a dégg. ah damaa grippé woon ku bëgg ma toog nag mën naa dellu léegi toog. ok yow moom. mooy may ma ma jàll léegi. Ah, ok yow yow ñun waxaguñ la dara sax ngay wut. foo ah, jàpp Archimède damaa grippé woon de. bu dee wóoluwu leen ma daal nee leen rek. mën na ñibbi ba ba ba mu am 14 jours. Hmm. waa les quatorzaine leen ma. c'est Amadou Kane. ëpp naa ëpp naa kii de. bonsoir. Hmm. ci loolu. bonjour. Aminata noo def. nata nata waaw kii doomu ndeyu Assane Diatta. da ngeen doon miti. <laughs> yéen ñun ñu fomm suñu séminaire ba yéen ngeen di miti. war ngeen a meeting man daal asom il faut mu woo ko. corona nag lii laa ko ah, meree. Ah. nga ni. Mm. ah Masata Diagne. Mm, mm. waaw waaw. ko nag mais nit ñaa koy wax. Oh, tey moom mënu wax ba suma paree duma ma dugg YouTube. ah. Eh, TV eh, l'officiel. Eh, bonjour. non ça c'est pas mais mais merci quand même merci mais c'est pas une info mais <laughs> moom faw ma dugg Sen TV l'officiel Facebook. non ça c'est pas une. c'est pas une info <laughs> corona nag lenn laa ko meree de. <laughs> sunu séminaire bi. séminaire boobu alaaj dañ ko yàcc. ah dañ ko ah, ah. am ah. naa ci métit de. maa ngi direct de. doo ma may masque masque. doo ma may masque. <laughs> masque waaw waaw. masque masque. alaaji man damaa soxla masque alaaji man sama man sama tund wa alaaji man man saa yi bu ma xëyee ñu tudd benn wala ñaari communautaire mm, te nit ñi mm. tamit alaaji il faut ñu doxi seen soxla président nee nañ nañ dund ak mbas mi te man man man man man man nag dama yaakaar ne alaaji man nag dama yaakaar ne kii joxe résultat yi moom ah, xanaa dama koo neexul laa yaakaar da leen a singal en tant que maire de la ville <laughs> da leen da leen a singal dafa <laughs> sing liggéey <laughs> ah! sama benn xarit moom daal waa ji bu joxee daal cas communautaire yi ba ba ba tudd géejawaay. Hmm. xoolal xoolal. waaw ma capture foofu ñu def géejawaay. lanaan ma pat chaque jour ma ne koy dee ma jox yëpp. waaw waaw na boole yëpp. nga yëpp. waaw mais bu géejawaay bi rek da ngay da koy photo nii rek yónnee ma. Ah, vraiment. quand on ah. se retrouve avec 113 cas communautaires. benn cas communautaire mën na contaminer en un mois cent personne waaye mën naa nekk waaye du ko def. ah du ko def. statistiquement mën naa nekk. waaye du ko loolu laa wax. quand on dit que mën naa nekk. waaye amul waaye amul nekkul. ah nekkul. nekkul dafa di la mën naa nekk ça veut que ni bu ñu deful attention loolu noonu mën nañ ci dugg déjà nii rek alaaji déjà nii rek benn malade keroog am na maa ngi koy lire ci benn commentaire ci benn page ma bokk kenn koo xam ne day liggéey ci bërëb fajukaay neen dañuy dugal nit ambulance moo am détresse respiratoire foo ko yóbbu pour dugal ko rayaa doo ko am dañoo fees le donc ñun nañu gënaat suñu bopp alaaji noonu supposé rek ni 400 yooyu muy wax ni benn cas communautaire mën na ko wàll loolu dafa am ku ci nekk jàpp ne rek cas communautaire nga. nga am symptôme ak nga ñàkk am symptôme ku nekk na jàpp ne yaa ngeen mbas mi bu ko defee ngay takk masque pour duma wàll alaaji mi nga xam ne dend naa moom. moo ñuy dimbali nañ ci dimbali ñu nit. daal ñoo toog nañu nañ leen dund ak doomu jàngoro ji. waaw dund ak moom ça ne veut pas dire ñu bàyyi mu ñuy rey. déet xam naa loolu. mais ngi ñuy rey aussi. déet booy moom moom moom du la moytu moom. moom moom du la moytu moom moom nu mu la duggee rek léegi na comme que ñoom moom seen matukaay daal mooy. nañ dund ak moom. daal en tout cas de doy na waar. yàlla musal doom. amiin doom sa sàmm yu sànni Sénégal gépp amiin nag papa dafa am benn maire boo xam ne xaw ma nag turam mais dafa ma war a yóbbante ma waaw nee na boo daan ñaan nee na moom mag la mais yow boo daan ñaan danga ci daan boole yàlla na yàlla jéggal ñëpp moom loolu da ci da bàyyi xel yow shérif nga soo ñaanee yàlla dana ko nangu kon del ñaan yàlla jéggal ñëpp waaw loolu bu ko fàttee di sa ñaan Ah, yàlla na yàlla di jéggal ñëpp. ndeysaan loolu moom da ko intéressé yàlla na yàlla jéggal nit ñi. boog yàlla na yàlla jéggal ñëpp. waaw waaw. Hmm. Hmm, hmm. sa doom baay bi nag euh, Ndeye Diop waaw. suñu soxna soosu madame ñaa tey la anniversaire am. et et et ñaanal eh. yàlla nag yàlla guddal fanam te gëral. amiin yaa rabbal aalamiin. waaw golf yëpp. yàlla sàmm ko sàmm njabootam bu baax a baax a baax a baax. waa na ma mi sàmm mu ñëw. bu baax. amiin waay. Euh, alaaji sori ah, kii maamu tiide la. nee na daf ñu déglu. waaw kay waay maam maam booy ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ak Yacine boo bu amee ay dara ñu nuyu bu wér. voilà kii nag euh, xaaral nag ma ñëw ci ñii. xam ne dañoo ana lan leen réer li moom kii moom nee na. Euh, dafa euh, réer la ay bagages yu mu bàyyi woon ci benn taxi démb. Mm-hmm. ña barki démb la ñaari pompe soba ak liquide savon marché joor. Euh, jóge fa wàcc marché bu bees Géejawaay képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 740 49 49. ca waay jël maa ngi day lii riir bis ki réew hmm. Hmm. Ah, kii moom Géejawaay la dëkk ci turu euh, Cheikh Tidiane Samb. daa hmm. réer la benn colis. bu def pièce d'identité ak yeneen i bagages. ay gàllaaj ak yu ni mel képp koo xam ne gis na ko nag na woo docteur Babacar Gueye ci 77. 687 41 26 merci Moussa Agne merci. Euh, suñu papa ji de Ibrahima Seck lu tudd. waaw am na lu war a toll ci soixante dix ans. waaw depuis deux ans ñaari at a ngi nii kenn gisu ko. i. Hmm? waaw kenn amul ci moom benn nouvelle Kaolack la dëkk nag Ibrahima Seck. Hmm. nitu diine la nit ku baax a baax a baax a baax la. Hmm. waaw ñuy ñaan nag képp ku am benn tegtal ci moom. tudd Ibrahima sekk te jullite seetlu lool man alxuraan. nga dimbali ñu woo ñu ci 77. 514 35 65. léemu Babacar Gadiaga passeport le riir li képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 111 60 02. Pape waa ji Aziz Fall démb dafa jëloon taxi nee na Liberté 6 extension côté centre du Diop. amoon na ñaari jigéen ci biir taxi yi. ay xale jigéen. côté 16h mais dafa fàtte ci coffre bi benn unité centrale. bu ordinateur daal ku ko gis rek na ko woo ci 77 816 76 24 tak wala mu ñëw fii dinaa ko jox numéro bi. très bien ak ak. très bien ça. daa jeex ana Moussa. <laughs> Moussa tey joxuma kay. ah andi na. leen di nag daa diis. waaye lee mu neex. ah daa diis waaye lee mu neex de. Ah. Euh, altine waaw altine nag ay côté dix heures lay commencé neex. dix heures onze heures. Mandaw Gueye dëkk njàbba xëli waaw njàbba xëli mu ne lan lay wër alaaji benn xar mhm. am kuy ci benn oto njaga njaay fàtt kuy ma ca oto ba ma nga doon dem kolobaan depuis mhm. jeudi 30 juillet eh, eh, kii de bi ne suba la tabaski la ay xaru tabaski ah am na xar boo doon laaj te moo doon te moo doon de. da nga ah, bi moo doon côté fii. LG yi LG yi. tout cas daal kii daal alaaji. Hmm. mi daal couleur bu weex la. Hmm? Hmm. Ah. te te na nga na nga ca nopp ba. Ah, ci nopp kii bi xar bi. waaw waaw. diggante. na neex diggante. Luufuun ak croisement Ngunjaan. képp koo xam ne gis na ko daal na woote ci 76 688 58 01. lii du Dakar. ma ne loolu du Dakar kon. ma ne kon loolu du Dakar. loolu war a tax ñu gaaw lijjanti ko. diggante ah, koy kii ak LG yi mbaaw. loolu war a tax ñu gaaw lijjanti ko. Ah, waaw kay danaa ah, waaw xam nga yu mel nii boo ma koy audio moom ak di ma ko day sawar fu may liir. man moom lépp loo xamante ni nii moom vraiment day neex ci nopp daal moom vraiment. <laughs> boo ma ko yónnee alaaj hmm. moom ma déglu wala luy luy neexal taaral bët. bët bu ko defee ma ma liir ko. waaye di ma yónnee ay audio vingt trois minutes. <laughs> non et man alaaji man sensibilisation bi ñu ci def keroog. pour man sax sa nijaay ji dana dana la wàcc. ah yow ca saa li koy yónnee waat man ca saasa nga ma wanaat. beneen ca saasa laa la wanaat soo <laughs> daal ca saasa la audio Mansour Diop benn benn 15 ak 17 ak beneen 23 minutes. te daan naan te daan naan damay kii damay gàtt. damay gàtt xam naa ne temps am waaw temps <laughs> waaw waaw waaw mais est-ce que le contenu de ces audio là aussi ñun war mën nañ ko am wala dafa dafa privé ba mu ëpp. déedéet. moom moom lan lay wax ci audio yi nga baal ma. déedéet déedéet non non junj ñu rek. maa ngi lay ziar bu baax alaaji xëju fi nag. vraiment 23 minutes moom boo fi tegee tës bi sa émission bi bi nga defoon ak seen góor a dey ah kontaan naa ci loolu ndax dey xam-xam daal mag ñi dañ ko amoon. te daanaka. lu toll ci ñeenti junni at moom lañ doon fajoo laata hmm. vraiment. Hmm. yii yëpp euh, ce qu'on appelle la médecine moderne di xew. Euh, boole ci. waaw ah mais mais mais mais nag déglu naa la déglu naa la yaat Ahmed Aïdara <laughs> euh, c'est c'est c'est vraiment intéressant ci li ngeen wax ci. Mhm. les président africains. ni ñu war a nekk ci mandat. wax wala ni. Eh, mais mais Ahmed dañu woon fa nii day may day may ay masque géej waay. xam naa xam naa ne boobu yaa ngi ci tool yi mais yow da ngaa bëgg nag da ngaa bëgg tool nag. ah kon yooyu. tonton daal xam nga kon li ma doon wax keroog. kon day ñëw waaw waaw waaw waaw waaw. tonton nag waaw waaw waaw waaw. tonton nag sama yaay ji de mère topp. benn euh, jarbaatam alaaji. waaw. Euh, élève CM2 la. Mhm. sonoon nag tenue sport. Mhm. Euh, turam mi ngi tudd Mor Talla Top. école Serigne Niang. Mhm. Euh, daa riir yow booy booy tee ngaa ñëw booy rek ñu def examen bi mm-hmm. dimbali nu rek feeñal de mm-hmm. ñëwal de dimbali nu rek mm-hmm. ñëwal waaye laaj daal xam naa ni ñaari xew laa amoon ci week yi benn bi nag dama ko rate waaw raté ba pare mais sama bopp bi doon metti waaw waay ah sama benn Amazon la ñoon may hmm? ah, doomu kii bi euh, association doomu association bi waaw sama jabaat boobu Khadija Karim waaw moom lañ doon may benn rakku maman ngenaar ko doon dëkk. ah ah loolu laay def alaaji géejawaay laa ah laay def di yooyu <laughs> ah, ah, ah, la noonu la de noonu la de. Euh, ko takk. noonu noonu noonu rek la mooy doomu Maay Sissoko mi demoon Màkka. ah Maay. waaw Maay Sissoko tam doomam ju jigéen alaaji. moom it madame Booj golf. ku góor ki golf moom wàqi naan moom wàqi naan waaye waaye yëpp ci géej laa bokk waaw kii itam Khadija waaw wàqi naan ku góor ki golf <laughs> koy defante noonu ñaari ko koy na ci njaboot gu barkeel soso rek <laughs> ŋàbb ma yóbbu ma ca bale ba <laughs> te man moom giñ naa fi ci alxuraan ne alaaji ñaari mandat rek laa yem moom waaw waaw ci réew mi moom waaw insha allahu rabi moom moom moom moom bu ma fekkul ñu vérifier constitution bi moom man ma ñëwee naa ko vérifier ba mu ne ràpp utal ko kànnaar bu kenn dootu am pexe. waaw waaw waaw dama koo rate suñu beneen yaay itam yaay ñoom euh, Binta ak ñoom Xadi euh, Bébé suñu yaay ju baax jooju démb nag euh, la fi jóge alaaji moom it ñu. ko waaye gis nga ko ñaar yëpp daal. waaw yëpp daal xam naa ne daal na ma waroon a taxawee daal alaaji. Hmm. waaw daa daa des nag. ah daanaka njaal ma daal xam naa ne na ma ko defee. waroon naa gën a gën a gën a gën a gën gën a gën a gën a toog. Hmm. ak fi mbas mi toll. Euh, takk nga tamit nag alaaji yàlla mhm. daa dogal moom téléphone rek waaye sa jotuma faa jaar mm. ajudoo faa dem jaaroo ma fa léegi nag euh, yooyu yëpp xam waaye xam naa ne ñoom duñ mer ñoom moom mm, mm, dañuy comprendre waaw fu nit ci xew déedéet déedéet déedéet meru ñàkk nga eh, ne ma yow moom maa la njëkk a war a wax ne la toogal yow moom boo dikkee fenn moom xam naa moom mbir euh, ba non seulement dana ah. yokk ñoom sans limite nga toog waaw ah, waaw Walfadjri dikk nañ parce que gone gi Walf lay def balance. gone gi animatrice la Walf. Ah. kan la ah Khadija Karim ah. ah ah, ah waaw ay gone ay gone média la ñu xam nga ne gone média moom bu ñu lay takk moom média yi dañ dafa xas. ah loolu la bu ko defee nag eh, yal na yàlla barkeel sëy gi. amiin yaa rabbal aalamiin. Ah, waaw waaw waaw barkeel sosu. waaw amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin waaw waaw. yàlla bu ca eh, eh, réeroo gu tar am yàlla bu ca meroo gu tar am yàlla bu ca bàyyante am dégg nga alaaji waaw ah, moom daal moom moom moom sëy wa daal bakkan wa daal alaaji waaw na gudd daal ba ku ca nekk daal laal say téeméeri at daal naa amiin amiin yaa rabbal aalamiin denc sa morom waaw loolu moom yàlla mën na ko te xam ko def ndax daal ñaar ñi ko seq moom dañ di ay nit ñoo xamante ni nii ñu ñu yar ci siraatal mustaqim ñu ñu yar ci diine tarkalla tarkalla sii soxo sii soxo si soxo banna waaw kay waay ah noonu la voilà moom daal alaaj daal mbas bi daal ñaan yàlla rek jóge fi daal. waa def bii wax naa dem nag de. wax naa dem nag de. dëgg na bopp nag de. <laughs> dégg nga jaaxle naa ci yàlla subhaanahu wa taala. waxoon naa la ci njaal benn nday ma ko ngemb. bàjjanam bàjjanam bàjjanam bàjjanam. <laughs> bàjjanam kii bàjjanam ngemb na ko de. bu baax. jox ko yóbbal. ne ko toogal. réew mi koo fi ëppalewul ëppalewu la fi. <laughs> ko waajal de. Mm-hmm. Mm-hmm. ko waajal. mbas mi dañ koo waajal. Mm-hmm. waajal ne ko ah, koo fi ëppalewul ëppalewul a fi sama grand ba ñëw na waaye ajjuma boo bett na ma mbetteel gi neex na. Hmm. alhamdulilah. fu mu nekkoon. non non mi ngi woon Italie walaay moom sax moom nañ xam la dëkk waaye daa nii chaque jour fa la ñuy déglu alaaj di ñu yónnee message. ndeysaan nekk soo ay la bienvenu. waaw ah, bienvenu kay. Ah, ndeysaan ndeysaan ndeysaan. kii moom daa réerle moom portefeuille am mu ngi tudd lan Balla a carreleur Kër Massar. Balla Ndiaye. waaw douze mille cinq cent moo newoon ca poset ba dégg nga Balla Ndiaye voilà képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci soixante dix huit euh, huit cent euh, soixante dix huit trois cent vingt deux quarante quarante. ci man de lii xëy di riir par bis. laa ilaaha illallaah ndey jaaxle na Omar Sidibé waaw waaw waaw. non non Omar Sidibé yow léegi alaaji hmm. te su tey wi na hmm. ah ci sama xalaat bu gàtt xaw ma loo leen ci xalaat li nga njoxt waaw waaye jar naa ubbi téléphone li nga njoxt waaw waaw jar naa ubbi téléphone de hmm. Omar Seck animateur bu mag bi waaw waaw waaw waaw ngay nuyu wér ah waaw kay ngay nuyu wér Rewmi FM Mm-hmm. <laughs> super complètement jaajëf waay <laughs> su ne ko mbay mu ne ko yow mm. <laughs> mbay yow mm. mbay xujja jaw maa lay nuyu alaay mm. man daal damaa yaakaar ni daal Kito maa ngi lay nuyu man daal damaa yaakaar ne daal. Euh, Pape Pouy cité des enseignants maa koy nuyu bu mhm. man daal damaa yaakaar ne daal alaaji. Mhm. man daal foog naa ni daal tës wi tey daal. laaj na ubbi téléphone. waaw waaw waaw waaw waaw waaw laaj na ubbi téléphone. Mhm. laaj laaj na ubbi téléphone de laaj na ubbi téléphone de parce que. lii xew ci armée lii alaaji. tiitiit amiin hmm? allahu amiin. amal ah, lii mën na mënees na ko suturaal suturaal xanaa. ah en tout cas daal liy xew liy xew ci armée lii. Hmm. laaj nag vraiment war nañ ko xoolaat. man nag dama xamul lan la nit di defi ci armeel la. boo denciwul ñaani woo. Hmm. alaaj ah demoo tamit wéetali sa borom delloowaat sa xel ca yàlla. wala nga set setal ko. ah am na ñoo xam ne dañuy dem ci armeel ngir alaaji oh, dellu siwaat sama benn waaye nee boo bëggee delloo sa xel ca yàlla mm-hmm. Mm-hmm. doxantul ba armeel ya rek waaw mm-hmm. boo ca xoolee benn tableau ñaari tableau ñett ba muy ñeent ici repose te ñeent ñooñee ñëpp alaaji yaag ñoom yéen doon ànd tooy xeet yàlla xëy wawal leen kon allahu akbar te sa njàmbaarte bàyyiwu la fi sam njàng bawu la fi sa gëm yàlla bawu la fi sa xam-xam bawu la fi sa alal alaaji bawu la fi sak mbaax bawu la fi sak mbon bawu la amul benn jikko bu nekk ci yow bu yàlla war a mën a wax ne ñoo kii jikkoom ji moom nii mu mel insha allahu rabbi du ma ko rey su ma soobee man kii kii mu adoon du yàgg moom ba ma rey ko ah déedéet ay guddal fan ak gàttal fan yëpp moom ci moom la départ ci moom la aju waaw mais kantaa kii ni mel moom man duma ko rey. ma mhm. <laughs> ngi ko xool suñu kilifa yi rek war a xam ne fii kenn du fi des. wallaahi. xool suñu kilifa yi rek ah ñii nga xam ne ñenn ñi dañ leen di waate. Mhm. ñii nga xam ne ñenn ñi ñoom la ñu gëm. Mhm. ñii nga xam ne ñoo jur ñii. ñii nga xam ne ñooy maamu ñee. amul kenn ko fi des. wallaahi. amul kenn kenn kenn kenn kenn kenn kenn alaaji bu fi des. waaw mhm. te deux mille vingt bi day li xew ci réew mi day. ah deux mille vingt amul ndam ci nattangoom. lu tax ma wax loolu. Mhm. mooy dañuy delluwaat fa ñu tijjee woon keroog àjjuma. Mhm. ndax waa ji dañ koo jëloon téléphone. ca Ziguinchor. Kanjana. quartier ba noonu la tudd te du yow. Kanjana Kanjana. ndekete néew boobee nga xam ne alaaji dañu koo sulli. ñaar fukki at ak ñett dong la am vingt huit ans. ah jeune la. jeune la célibataire. Euh. percal baag yooyu. waaw. xam nga ci biir xam mi ngi naan dañ ko dañ ko muri cangaay li. waaw mais ndekete percal bi alaaji. dañ koo xotti. ah dañ cee xotti. non kooku est-ce que deseeti naa dara sax ndax moom yaramam beeg yëpp a doon feeñ. délégué bi nee na am na ñetti at ci ginnaaw alaaji uh-huh. ñetti at ci ginnaaw uh-huh. lu mel noonu moom dund na ko tamit délégué bi expliqué nii encore nee na moom gisoon na ko waa armée itam war nañ cee jug nag kon ki koy def moo koy moo koy def waaye moom ba mu gisoon sax moo gën a garaaw ndax boobu moom bopp ba dañ ko ne tippi dagg waa léegi mën nag néew nañ la ko nit di fekkee alaaji ñu suul hmm. nga dagg boppam néew yow sulli bi rek <laughs> kooku kooku atrocité boobu kooku kooku kooku moom alaaji moom kooku c'est le sommet kooku moom kooku moom fa la fa la fa la jëf ju doy waar yem hmm. sulli bi rek sulli bi alaaji nga sulli ko ba pare jàkkaarloog moom war a jël sa paaka war a jaasi na ma yàlla jigal ngeen baal ma war a dagg bopp bi ah! ku dem laaj nañ leen dara ci biir bopp bi ah! Ah! <laughs> day loolu day dagg bopp kuy waa ma kuy dund te amul la njëriñ boppam boo bu deewee nga dagg boppam lu mu la amal njëriñ hmm? dund yow boppam xalaat te ko ba mu dee nga dagg boppam loolu dagg bopp ba mën a jëriñ hmm. parce que nee na armée lii fii nii xewee nii alaaj euh. du làmp du gardien amul gardien di xam nga armée li sax am gardien. fii hmm. ah fii de Dakar moom yi fi ne moom dañuy am gardien. waaye bii daal amul gardien yàgg na ñëw pour ñu wutal leen ay làmp. Hmm. mais daal. te ñoo déglu monsieur le délégué Alaaji. ah nañ ko déglu mu xool wax ba xam. aca Soumaïa ok man maa ngi tudd Lansana Kandji man maay le sous-délégué zone Laébékounda te ce matin dama génnoon dem régler ji benn problème euh, dans le quartier après si le gendarmerie oo ma ñu ne ma yow yaay Lansana Kandji ma ne leen woo effectivement ñu ne ma il faut tout faire nga ñëw cimetière parce que am na néew bu ñuy euh, sulli si problème bu ma demoon régler immédiatement boobu laa euh, laa ko wàcc ma ñëw ma ne lii il faut que ma ñëw gis de mes propres yeux bu mhm. ma li laal dama jooy dama jooy on dirait le gain bi xam naa ko parce que bu ma xamee sama bopp tey cinquante quatre ans tey je n'ai jamais vu ça ici à Kandialang si cimetière bi musul am musul am donc euh, affaire la boo xam ne dafa ma touché. mbir yi naka la demee da ngaa ñëw fekk ñu ubbi cimetière bi ñu ubbi bàmmeel bi. waaw dama fekk ñuy gas malaan bi ñu dési côté bon tout est déchiré là heureusement euh, un habitant qui m'a averti. bon kooku ñoom ñoo nekkoon là si ñu monter sentinelle parce que y a les ki qui entrent là ici a n'importe quelle heure xaj yi tamit fii la ñuy dugg à n'importe quelle heure donc s'il y avait pas ces gens là donc néew bi xaj yi ak mbaam yi dañ dañ koy lekk Euh, donc affaire la boo xam ne ñu déplorons vraiment ak notre énergie je crois que autorités yi ñëw nañu am na confiance ils vont achever ces travaux là. waaw léegi euh, ki ngeen ku ñu suul di. góor la wala jigéen euh, góor la il paraît il vingt huit ans xam nga kooku jeune la. et puis encore il n'est pas marié il n'est pas marié. Mhm. c'est vraiment triste. Mhm. ah bi il paraît Grand Yoff la ñu jógee. Grand Yoff Ziguinchor fii et ses mmh. parents sont là euh, donc vraiment lii métti nañu trop trop trop trop billaahi mais mais noo leen ko fekkee buñ ko soulier Euh, génnee ñax bi wala. yaram bi voilà bon dañu génnee ñax bi bu ñu génnee ñax bi déterré génnee suuf bi malaan bi encore ce qui est frappant. malaan bi dañ ko waaw perkaan bi dañ ko xotti xotti. c'est déchiré là un peu partout là donc euh, il faut ñu sulli ko ñu xam exactement est-ce que membre am na ay membre yoo xam ne cëram yi yoo xam ne peut-être dagg nañu ko ou bien dagguñu ko. donc euh, xëy na bon porteur de service d'hygiène la ñuy xaar ñoom ñu ñëw def laa seen liggéey xam nga ñun en tant que civil ñun ñun on peut pas faire ça déterrer de pareil cas pour xam mais il faut ñu déterrer ko carrément ñi xam euh, est-ce que dagguñu cër si moom waaw moom euh, daanaka dëmb lañ ko denc. waaw dëmb lañ ko denc mooy jeudi. waaw waaw dëmb ko denc fii jeudi. Hmm. te ñu ñoo fekk lii. tu avais presque euh, jambes yi ñu ngi woon si biti. heureusement corps bi dara jotu ko. bon loolu desuñu ne sa des nañu. nëbbul non non non comment euh, parce que dëmba dëmba mënul euh, décomposé wu quoi. Hmm. Ah, décomposé wul mais situation bu ñu ko fekk vraiment métti na ma trop. Hmm. métti na ma trop yaram yi mu ngi ci biti vraiment neexul sax pour ngeen tiim ko. actuellement. lii dañ ko yàggoon dégg dañ koy dégg ci rajo yi ci yeneen gox yi te mu yegg si Ziguinchor ab tiitaange la. waaw tiitaange la bon lii tiitaange la parce que aduna nu muy doxee vraiment doy na war trop bon lii daan nañ ko dégg dans le pays ñag la mais actuellement loo xalaat mu ngi fii loo xalaat mu ngi fii parce que je peux vous dire une année là aussi grand cimetière bu Belfort j'ai vu de pareilles choses aussi ah man je l'ai vu parce que boobu xale la bopp bi la ñu crâne bi kese je l'ai vu de mes propres yeux. dañoo dañoo dagg bopp bi. waaw dañuy dagg bopp bi ça je l'ai vu à la grande cimetière de Belfort. moi. parce que suñu benn paa moo gaañoon euh, château dañuy dem enterrement rek ci vu ça. loolu yàgg na. Euh, bon ça fait ay euh, trois ans actuellement. Hmm. je l'ai vu de mes propres yeux. donc il faut une fois de plus ñu sécuriser nos cimetières là. Hmm. waaw clôture bi bu eggee mu am ay les lampadaires. waaw ah. ah, lampadaires yi nekk ci parce que je prends un exemple là man Mbour laa nekkoon dëkk bu ñuy naan la Ngaparu mais boo fa demee seen cimetière yi am na courant ñu ngi ñaan maire ñu jàppale <laughs> actuellement euh, euh, Kenya bi ñu def électrification bi pour fii mën am sécurité. Mhm. waaw boo amee sécurité de je euh, suis vraiment sûr que lii du amaat. ah mais s'il y a des portes la un peu partout ah, xanaa cimetière bi amul gardien. non non amul gardien a pas de a benn allée boo xam ne plus de combien de mètres. vous avez un autre allée là ici. voilà de l'autre aussi. ah donc nit mën na dugg fii a n'importe quelle heure si cimetière bi. nit mën na dugg fi à tout moment nit mën na rey nit ñëw suul ko fii boo amee fit. billahi te kenn du yëg. kenn du yëg billahi man si quartier bi laa nekkee. nit mën na rey nit ñoo suul ko fii mu jëm fii kenn du ko yëg billahi loolu il faut que médecin à ça il faut que médecin à ça ah, moom laa am euh, pour wax euh, cimetière euh, cimetière bàyyi nii vraiment sama xol bi fees na trop ah, ok jërëjëf jërëjëf jërëjëf suñu borom day xam naa ne day ku suturaalul ñii ñu ñii ñu denc. Hmm. mën nañ ñiy ci kaw suuf xaw lu leen di di suturaale. yal nañu yàlla musal ci am fit. ak ki ko mu si rek ci am fit. Eh? fit moom boo ko amee jombale woo sa bopp def dara tiitoo def dara ragaloo def teet di dugg ci ay armel moom sa waay man moom ba pare alañ dugg ci ay armel guddi rek rek rek rek. Hmm. am ko mën a dugg. ba pare amul gardien bu la bu la bu jàppale bu dara rek amul làmp. xam ah. ah. ni yàlla maandu. Hmm, hmm, ah. yàlla nga xam ni moo maandu. nit ñoo xam ne noo tëdd mënaluñ seen bopp dara lépp dañ leen koy defal. yow nga mënal sa bopp dara dugg fekk ñoo xam ne yàllaa leen fitiral mënalu leen dara. nga génnee leen def la ngay def ci seen càngaay ca seen yaram. yàlla toog di la seetaan rek nii. ngay def rek ak a xam nga la moo tax mu def. parce que danga am xol boo xam ni il faut mu teg la benn daan boo xam ni tant que bàyyiwu la nga def nit tooñeel yow du la teg daan boobu. Mhm. xam na ne yow am na am nga xol boo xam ni faw mu teg la ab daan te dafa bëri yërmande bëggul ta teg daan nit. mais il faut mu bàyyi la di la seetaan nga tooñ El Hadj Ahmed Aidara wala El Hadj Mamadou Mansour Diop di ko tooñ di ko tooñ di ko tooñ ba mu xam ni nag yow tooñ nga sama beneen jaam boo xam ne ni ma la bëggee laa ko bëggee foog ma fayul jaam bi mu door lay teg nattu moo tax xoolal ñi fi doon def def def daaw lu bon ak ren yàlla ngi leen teg nattu ñuy dund mbugal ak mettit parce que dafa am ñu nu tooñoon ak lu nu tegoon lu metti tooñ léegi baaxul te yàlla léegi ah. yàlla léegi basket ak casquette lay solde mm, fii lay fii lay fajee xaalatul suba de mm, mm, ah! wallaay wallaay walaay Ndiaye jaatam nday maan wax nga de. Hmm. le monde va mal de waaye. mal. lii sulli nit ku dee. sulli nit ku dee alaaji war a jël ci ay tàngaayam ak. wala dagg ci ay cëram. Hmm. war a dagg ci ay cëram alaaji hmm. cëram. waaw ba pare buuxaat ko ca pax ma wa ilaa daw bàyyi ko fa. <laughs> c'est excellent ko la fa fekk doo ko sax ko. da ko fa bàyyi daw. du fa jëlaat temps. fa jëlaat temps pour ko fay fekk. ah waaye ñu koy santaane tamit day. Hmm. responsabilité partagée la bàkkaar partagé. Hmm. rek ñoo ci ëppale sax. allahumma solli ala sayyidina. ndax nit ki boo ko deful ci xelam waxoo ko. bu ko dem defi. parce que dafa def ko rek. laa ilaha illallah. laa parce que dañ leen ko sant. te gis nga ah cam. Hmm. laay xanaa nga wax alaaji. bindee fii. jaam yàlla yii. di nit ñi. ñu war di sagal borom bi lañ. waaw xam nga li ñu naan bu yàlla ne waaw léppay changé. waaw mais keroog bi yàlla ne waaw. dafa am ay malaaka yu taxaw siisu. Mm-hmm. déggoo ma de. Mm-hmm. dafa am malaaka yu taxaw bañ. te ñoom mosuñ bañ. mais keroog dañ ne ñoom keroog dañoo créé mouvement Y'en a marre. waaw. <laughs> ñoom malaaka yi. waaw waaw ay morsoy xonq ne ko yow. yow yaay taxawaat suñu kanam fii yow suñu borom naan ñu yow da ngay sakkat yeneen i mbindeef wàccee leen ci kaw suuf. non non non non non. atajaalu fiihaa man yufsidu si man ah. yufsidu fiihaa. <laughs> non tu n'oses pas. wa yufsiku dimaa. ñeme woo ko de ñaata mbindeef nga fi wàccee. xoolal ñu dem ba ci yàgg beew te ñun duñu beew dem ba ci yàgg di tàggoog seen sago di màndi te ñun duñu ko def dem ba ci yàgg di reyante seen biir di tuur deret dem ba ci yàgg di njaaloo dem ba ci yàgg di sàcc dem ba ci yàgg di rambaaj di yàq weddi la. dem daanaka yow yi ngay santaane yëpp. dem ba ci yàgg di feesante di lekkante. Ah, ah waaw. di lekkante mais mais malgré yooyu yëpp yow tey nga ñëw nga ne da bëgg a créé waat yeneen i mbindeef bay génnee ay échantillon di ñu ko wan ñii daal ne woon fóon borom bi ne dinaa leen wàccee ni ñu ka ñu def mouvement Y'en a marre. Hmm. Y'en a woo presse bi ñëw. <laughs> ñoom malaaka yi. <laughs> waaw te xawal aras xoolal néegu borom ba. Hmm. naan dañuy yëngal gësëm. créé seen benn insas xaw ma sita lekk. mbalo ja capp ma dem def ma dem ba soog ak mbalo ja capp. tëkk ay morso xonq. mais borom bi ne leen ah bon mën ngeen di defee. gars yi bi ñu weetee seen biir xam ne suñu tutelle mii ministre bi fawul de. non caaxaanul caaxaanul te mbir mi yegg na ci président de la république. dellu gi waaw ñu leen inni aalamu maa laa taalamuun force. neex na xare xam naa loo leen xamul. ma xam xoolal ñu xam ne nag punkal mi fawul. ba leen ma def. bañ fa nekkee naan dañuy jéema tuub. daanaka béy ween a muus wër leen sama néeg bi di aras la leen wax acca wër wër ngeen balaa baalu wër ñu defa di ko supplier néeg ba ca kaw bi mu ko wàccee ci suuf mhm. méngale kook àdduna mooy kaaba gi tey di xaram bi waaye ñee fee juróom-ñaar fukki junni caayat dañ koy wër duñ mën a duñ mën a wër néeg ba bañ xooxee ba xoox sonn te xam nga malaaka du sonn waaye keroog sonn nañ mm. ci leen wàccee ñu ñëw fii nii di wër lii nii ci suuf mooy suñ tawaaf gii ñuy def fii de. attention de malaaka yaa ngay wër jinne yaa ngay wër nit ñaa ngay wër. Mhm. kaaba gii nga gis. te mhm. mer googu la mouvement Y'en a marre bi. 23 mhm. juin. meru malaaka. xam nga li ma la xalaat. waaw léegi nag ñooñu ñoom taxawoon ne ñii dinañ la rusloo. dinañ la teg gàcce. dinañ dem a dem a dem ba xoolal dañuy reyante seen biir loolu dikk na. danañ dem ba ñuy sulli seen i néew sax di toroxal ñi dee. loolu mooy tësu tay dinañ dem ba ci yàgg di naan ba ne tatt tàggoog seen sago di reyante. danañ dem ba ci yàgg di njaaloo. danañ dem ba ci yàgg di di di di sàcc. dinañ dem ba ci yàgg di di di di di weddi la. jékki-jékki ni ni ko ni ko ni ko ni ko dañu lay sax déranger nag. ci déranger lañ dëkk muy muy fen. muy fen parce que fen woo fen ba nga buur ba yëngu. yëngal gësam. Ah, loolu rek ko mën a yëngal. xam nga bu ñu demee ci wolof Sénégal ba naan xuloo la woon rek. Ah, waaw bu xuloo jotee moom eh, ku ne day day seet lu ñaawee di timba. Mm-hmm. maanaam kon dangay ngay fen <laughs> waxoo dëgg. ah, ah xuloo mm-hmm. mbalit la rek. non non non alaaji jot sama xam non non olof kay dem na sax alaaji bari la. Eh, fen guy defar moo gën dëgg gu yàq. waaw waaw te loola. non xam nga sax loolu boo demee ci wàllu téere am na fu ñu ko am nga fu am na fu ñu ko soxtal. alaaji fen mm, am na am am na fen boo xam tuyaaba la. <laughs> waaw c'est vrai nga fen nag fen boo xam ne. am na fen boo xam tuyaaba la su ma su ma su ma ñëwee amee Aidara daan ni ma. da nga ciy kontaan. alaaji Mansour ma def ah. waaw mun ko euh, man leen déedéet doo da ngaa dégg de te man de mag Mansour bi ñu toog di ndékki billaahi li mu wax ci yow. li mu wax ci yow seede ko ci yow. billaahi li nga dégg amul. bokkul ak waa ji lim la mhm. nettali de. waaw billaahi du luñ la wax. rafetal wax ja. loolu boo demee euh, sëñ Tuba am na fu mu ko settee ñeent ci kàddu yooyu ci euh, defe naa Mawaahibul Xuddus la ñeenti wax yi nga xam ni euh, du doon wax boo xam ne day am cëslaay te te te am ci jaamu yàlla lu doy lu doy waar lu am solo ci wàllu tuyaaba lu am solo ci wàllu tuyaaba. waaye bi bon nag mooy bi bon mooy. Euh, ma ñu ma ma ma ñu ni Ahmed Aïdara mi yëngal si su aras ba waaw. <laughs> Ahmed Aïdara de lu ma wax mu dem de. dafa lànk de day këf de. maa tegoo sa téléphone ci wetam. gan nga ci kër gi de moo tax téléphone. léegi kii rek. bi yëngal di jigéen de. ndeysaan dama euh, dama am sama xarit. yëngal si dafa solo de. dama am sama xarit boo xam ne. Euh, Ndiaga Diongo uh-huh. mi ngi fii assemblée uh-huh. assemblée nationale gii la nekk Ndiaga Diongo uh-huh. jeune la xale mais chaque jour laa koy seedeel. fu ma gis ay frères am seedeel ko lu ni mel. ndeysaan xam nga alaaji nit ku mën wax ju rafet. Mm-hmm. alaaji nit ku mën defar. Mm-hmm. ñëpp dañuy dégloondoo audio yi sax mu jël la ci suuf ne la wuy ma sërif. Mm-hmm. pourtant man ni ma ko faram fàccee ak ni ko déggee bokkul de. nga ne ko mu yow. ndeysaan mais yow xanaa. ndeysaan yow yow yow xanaa déggoo li mën soor wax yow wala da ngaa déggul olof mu ne non dégg naa olof de. ni nga ko déggee xaw man fan laa man fan laa déggee. déglul fin ba ba muy daaneel. du ne bu dee mbëggeel rek. man nit ku nu ma laa bëgg ba pare xoolal ni mu ubbee bi mu ubbee dafa ni. Mhm. yow da yow t'as pas bien saisi le le le gars. ndeysaan ndeysaan il n'est pas compris. par les autres. Mhm. gars yi dégg dégg comprendre luñ xam nga ma la gis mhm. léegi yow mi amoon alaaji xol bu naqare bu bon sax. maanaam moom dalay duteloo léegi ne ah. waaw pourtant Ndiaga Diongue mi li mu wax dëgg la de pourtant. non non non il faut que j'écoute encore le gars. attends attends mu dégluwaat ah, ah. li mu la mujjee wax yow. <laughs> loolu la ngay cherché loolu ngay bàyyi xel. et ngay trouvé. mais pourtant Ndiaga wax dëgg de. barke loolu day am ci nit yi ak ay nit ñoo xam ne nag. contraire ba léegi léegi day am ñu yëngal chaise. boo amee ndam duñ la woo. Hmm. Hmm. soo amee lu baax duñ la woo. Hmm. bu ñu gisee ñu waxal la loo xam ne lu ndaw lu tax lu tax nu garaaw sax. alaaji. ñoo koy copier lien ba yónnee la ko. Mhm. Mhm. dégg nga diw li mu la wax tey tàngal sa waaw tey émission bi. non gars yi xoolal nelaw moo woo fajar. Mhm. mais kii dalaa yëpp day yow amee. boo ma ko defee dootoo ko defati. soo feebaree duñ la woo bu absenté duñ la woo. jamais. bu ñu xëyee déggaat la nga wax ñu commencé waat di la message ak. di la woo di la yónnee ay ñaan. déggoo ma de laaj man déggoo ma de. man de ku dof dof la ba yónnee ma ab lien boo xam ne dañ ma cay xas. wala dañ ma cay wax lu man a xari xam nga homme public moom ala ku li àlin boo bañee ku la wax lu la naqari alaaj mm-hmm. bàyyil rajo yeeg télé yi yaa ñëw feeñ boo nekkoon menuisier ma maçon kenn xamul a xamoo kenn kenn du la sonal yaa toog ci rajo yeeg télé yi bul sonn hmm. suba nga yaa dem di way mm-hmm. dégg nga mm-hmm. yaa comme que waaraatekat yi ñoom oustaz Alioune Sall lañ fi bawul asamaa ñeneen ñi wallaay dëgg la taxaw leen parce que yéen a dem taamu métier moo xam ne adduna dañ leen di xam kon yow na jàppal ne bis bu ne danañ tudd sa turuy lu ëpp benn million wala lu ko ëpp ci bis bi ah, dégg nga kon kay yow ala kulli alin yooyu da koy bëgg di jot. wallaahi waaye nag yow nga koy jot ba pare nit koo xam ne nee na xam na la xam sa numéro di ko copier. Mm. di la ko yónnee. Mm. man de boo ko defee dootoo ko tóllanti. Mm. bu ma la woo du la yónnee audio sax nga jël sama audio yi di ko tasaare ñu naan sërif bi ndekete day day day sikkar ak a xorom dama lay téléphoné. danaa la wax loo xamante ni lu raw la ma nit ka wax. Mm-hmm. ngay dof dof lu ma taal sama kalandoo bi ñoo fekk la sa bunt kër. sa papa ak sa yaay toog ma ne leen kii ngeen jur taskatu kër la naa fekk la bu ne daf maa bëgg waxul dëgg wax ba ne serereet dégg nga taalaat sama kalaandoo ñibbi parce que dooma dooma moom comme que ñu jiite réew mi lañ <laughs> tey sax président. moom tey moom. non moom ni nga ma safee président Macky Sall mu dafa saf na lool. non non ma euh, gis nga yow. non non tey moom. non nee ma rek dag may sa président noppi. mais danga may sa président Macky Sall alaaj alaaj alaaj sa doom jàng nañ toog nag déet déet déet li waa ayul nag si si si ah, non non ah, mais dañu waxante dëgg alaaj eh, alaaj moom ban président la mais Sénégal benn président fi de déedéet déedéet waa léegi waa léegi waa léegi dama nuróoleeg président Idriss Seck wala ay Ousmane Sonko waaw non j'ai pas dit eh, eh, eh, waaye yow waaye déglu déglu waaye kooku du président de la république waaw ah, waaw d'accord naa parti na léegi na ne ma nag may jox président Idriss Seck costume bi cravate tey moom nuróo ak kon yow man damay nuróo yenn saa yi nga nuróo ak moom wax dëgg yàlla moom tey moom da wax dëgg yàlla moom parti wax dëgg yàlla moom waaw wax dëgg yàlla kon ma rek ngay nuróo yow man ngay nuróo léegi mag yow yow lii di bëla yow ma sol bu la alaaji damaa sol bees marron. de moom dafa bëgg couleur bii de. moom daa bëgg couleur bii de ko bëgg de moom rek lay sol. ba muy wax ba muy sax l'heure est grave sax comme bii la sol. yii <laughs> euh, façon bi nga ko solee ak cravate bi. tey moom ni moom bu la président gisoon. non dina la non tey moom dama doon dama doon rek. dina ni da nga maa bëgg envoyé ko Adja. waaw waaw. lii moom dama lay photo soo paree nee. ma ah. envoyé ko Adja. alaaji. Hmm? alaaji ma bett nga. ah ndax la. Ah, dina la non non non yow yow ak li réew mii ni wax naan ay. see xam la see xam la yow. waaw yow ndekkee yow alaaji yow ndekkee da ngay wax nii waaye yow ndekkee mosuma nekk sa xol. ah ndax la ah kay mosoo maa bëgg. kay ndax man Tulaay man damay niroog yow nga <laughs> ah, <laughs> li nga sol. tey de kër yëpp nangu ne tey moom ba nga nee tëll man ba nga nee tëll fekk ma ci ah, studio bu ndaw bi. man dama moom sax xam na ni tey daa niroo ak Macky parce que. non daa woote ni kaay leen photo dafa dafa dox doxu mag. <laughs> dafa mu ñëw ni ko mu fotale mun ma déedéet alaaj doomu foto ndax yow doo caméraman seetal leen ma caméraman ci suuf. xoolal eh, Ndoye. xoolal eh, ñëwal. président buy wax ni muy def nii mbagg yi sax suba tey lay def nii nii. ah gis mhm, tey nii lay def nii nii. tey moom wax ba duma la foto yónnee ko Adja. kon moom moo. mënoo wax ba billaahi kii wax na dëgg 123 bi. nee na ma neexul ma neexul mais Mantoulaye yab na ma. ah Mantoulaye amul dara dara dara dara dara lu mu nuróo leel ci fajaru tey jii alaay ah. lu xool bàyyam ba sàppali ko. Ah, ne ko da ngaa nuróog bàyyi Amadou Sall ne man damaa nuróog Macky. kon Adja Marème Faye waaw mais. lii laa wax nekku ci ah. da ngaa da ngaa sol man lii laa wax sol kii rek. tey de. <laughs> tey de euh, tey de Adja mu xam nga. xam nga moom daal daal mu ngi noonu rek. Choumer. Choumer. Ndiagal. kafe ga PA yi maa ngi koy nuyu. xaritu doomu ndeyu Balbo merci. yenn saa lu mu bon waaw oh, booy. kookan la. Ah, Aba. waaw. mais Aba fréquence Zik FM Kolda lan la. Kolda euh, Kaolack Kaolack Kaolack Kaolack. jawharu nafis non non ah, xaw ma ko. sëñ Tuubaa boobu la. jawharu gisoo gisoo nafis la tudd ah. ah. jawharu nafis waaw. fréquence Zik euh, benn. jili waaw nekk baar ma sa sama rakk ja ñoom galas nga mag yooyu suñ koñ ñoom Ibrahima Fall léegi ma ne koo kan la kan la kii kan man la Abba. Abba. Abba kii Ahmed nag Ahmed yoroo kalandoo de. kalandoo moom sori nga ko lool lool. kalandoo. wax ji li muy réeré ku nekk sa ngay déggee. <laughs> Aba. kalandoo boobu yor waaw Aba eh, Aba yow yow kii la te bul tooñ tey. waaw bàyyi ma noppee rek. waaw tey bul tooñ. waaw parce que li ngeen ko kii rek baax na doy na. déedéet ñun kii ñu de ñun ñun tooñu ñu de ñun dañu ñun dañoo joxe juste information rek. Mm-hmm. mais lu may bañ ne dafay niroog waa ji. ma ma <laughs> nga ne nga ne kan laay nuróole eh. kii dégguma la wax daa yow kii lan la wax. dara. dama nekkoon sama dara ah ah Ba. déedéet xam nga man bañ nga am problème. non non dara xarit la. mais tey moom tey moom leer na ma am na nooy duggee génn dugg génn man ci boppam man dinaa am passeport diplomatique boo leen nuróole woon ak sax alaaj sax ñu ne gàttaay yeeg yooyu <laughs> xeesaay ba ba jaaxal xeesaay ba daa xonk di man man alaay moom daa xonk di géy man ko si man parce que xamala xamala moo tax xamala moo tax alaaj waaw tey fi ko laaj ma que tey fu ma romb dañ naan ma eh <laughs> bi ñëpp koy am na bërëb yooyu déglu dugg ah. xoolal di nga signé te kenn du ni kenn signé wul dañ naan maquillé signé <laughs> tey bu ma amul passeport diplomatique balaa may tëdd ci yow la ah, ah. tey loo si ne réew mi kenn du ko dindi. kii naan ma man man dëgg la. ah baax na ñu la seetaan télé xam na. baax na ñu la seetaan tey 7h30 bi. Euh, kii ab oui. Euh, Alassane ah, waa koñ. ñu fa ñu si jàmm. Oh. dama bëgg génnaat télé tey. dina bëggee rek ma nu may def ban émission. non suba teel ba foog nga yéeg fa. surtout waa marché jàmm gan. maire yooyu di jaay jën foofu ñoom ñëpp dañ lay bëggee. Euh. maa ngi leen di nuyu. Euh, tey dégg bu baax. waaw leen samay salutation waaw ñoo leen ñoo festi leen nag benn benn jour. fan la. jàmm gën marché jàmm gën. waaw dinaa ñëw seet si mbaa mbaa ndox mi taawu fa. non am na accès yu taa de diggante jàmm gën jëm ci te yow sa oto yi moom. car allah. man sama oto yi amuñu problème ndox léegi. <laughs> MD. ma ni. ma ki waaye. léegi ma ni. walaay man tey nee na. MD nee ma nuyul ma Macky waaye. ah MD. non Matalaye tey tey du tooñ amet quoi tey ah, bàyyi naa la MD nag stage yàgg na nag MD nag stage yàgg coro xaana goo sax yow Matalaye coro xaana goo sax yow coro xaana goo aywa ak xaw ma ay mëgg nga léttu xaw ma ay traversé. mbëkk mëgg mëgg xaw ma ay mëgg xaw ma ne. mëgg. <laughs> alaay alaay. salon sanu laa koy yëngoo salon sanu. alaay tey ki mu mënuloo leen métti na ma trop. non tey jii nii. non xoolal yow yow ki jiite réew mi lañ leen rële loolu gàtt nga ko baax la. Eh, lan lan gu baax te xoolal <laughs> day def ay geste pour bañ a niróo moom mais geste bu mu def fu mu toll nii niróo lan gu baax lan gu baax lan gu baax. lan gu baax xoolal Macky nii lay ah, defee gàtt nga gàtt nga. gànga lan lu baax waaw. mooy mooy di ma nuróo lañ Macky. ah. Euh, Aba. <laughs> tey moo xalal. Aba tey foo romb da. amit nuyul waa nuyul waa Italie. Eh, eh. ñu ngi lay nuyu. kan ak kan la nee nañ tey yaa ngi nuróo. ah eh, eh eh la eh. Aba waxuma foo ne waaye nga naan maa ngi nuyul waa Italie. waaw ñu ñu ne yaa ngi nuróo kii. kenn nuróo li maa ngi. mais de moom xoolal xoolal xoolal geste bi am na ci photo président am na bii ci photo bii nii ay xool bi bii nii muy def nii président am na ci photo laaj gëstu. bii nii président am na ci fa. l'heure est grave. <laughs> Aba. waaw. l'heure e grave. defal test. defal kii. Euh, non tey moom ni nga nuróog moom. dafa euh, trafic. voilà merci beaucoup El Hadj. Euh, waa Alpha Badji ak Sali sa France ñu ngi lay nuyu dégg nga dañuy déglu si. di déglu def bi quoi voilà merci beaucoup xibaaru dem bii di wéyandi si Zik FM jaax nañ sànq si indi eh, ak si jaax nañ sànq rek fi nga mooy sud des eaux bàyyi fa beaucoup de complications du côté de intersection bu nekk foofule intersection bu Madié Sall foofule des ralentissements moo lay xaar ci le trajet su ko dépassé aussi mën ngeen progresser tranquille utali rond point bu nekk foofule Gédo pas tout de complication seulement ay véhicule Liberté 5 ñooy transiter par là ñu bàyyi ko avenue Bourguiba jaare ko fi nga xam moom mooy à hauteur de Castor tax ba foofu la quelques lenteurs sur les deux voies ñaari tali aussi ça ralentit à ce niveau mais su ko weesoo aussi mën ngeen progresser tranquille utilise ko Liberté là-bas de signalisation yi ñoo lay xaarloo su ko defee soo ko weesoo la voie est libre mën nga progresser utali école de police wala boog nga jël avenue Dial Diop foofu merci coupé goo sax Chimère euh, man kër gi gis naa ba gis mais gis nga Chimère mii lu ma ko jàpp yóbboo ma gën koo jàpp waaw Chimère mii. Chimère mii. Chimère daal laa gis nit koo xamante vraiment mais ay ñoom allah jeeg mantulaay koo yaakaar mi ngi lay xaaral bis. Chimère a ngi ree de. waaw waaw non non non. Chimère <laughs> a ngi ko muy nuroo. du ko mës a wax. bu loxo. Chimère a ngi ree rek. bu Chim ku muy niróol. Chimère te tegal kii na di rien consent. tegal publicité. waa lu leen di xaar saabu bu baax muy setan di bàyyi xet bu neex tey li yaram waa suñu leen waxoon ni seen saabu mën na lu raw loolu. waaw waaw ak savon liquide fraîche yi da ngay set foo te ànd ak xet gu neex day dundal sa der te di ko aar bu ne fraîche yi am na gaam saabu. limon bi di rey xetu yaram ak niinaay lem bi di bàyyi parfum bu neex ak hydratation bu jéggi dayoo menthe bi di rey bépp bactérie waaye am na pêche bi di liisal tey nooyal sa der ordinaire bi di setal tey raxas bépp salte Fréchi daal péex set ak bànneex saa su ne Fréchi stay fresh stay clean Uniparco cosmétique vivez votre beauté exprimez votre différence pariel la ci 1xbet ak sa téléphone foo mënti nekk ak waxtu bu la neexee ubbil sa compte ak code promo Zig FM nga gagné 200 pour cent de bonus ci sa dépôt bu njëkk daaw leen ak daaw parier ci site internet bi di www.1xbet.sn ak 1xbet yaay chef aka ñoo xam lu baax te di ko def xanaa waa Vitale Vitale ñëwati na dee ak ay xéewalam di leen defal nag ay réduction wàññi ci njëg bi la ko wax seen sachet 500 grammes ba waaw léegi day ñaari téeméer ak ñeent ko rek lay jar 1200 francs nga ne maa la ko wax ci fépp nag ci biir réew mi yéen consommateurs yi dem leen ngaa wuti ko ma ne la vitale day waaw saay boo leen di xëyee mu leen di gën di lekkam am na kaaraange set na neex na yomb na ay butéelu meew stérilisé anti et concentré non sucré meew ci senegal gii ma ne affaire bi vitale la vitale Yeah. naa laay yoo de dem nga bay ma man way naa laay yoo de président nga ni xam naa lu mu métti te ki may jàppale fii du wax walaay simet du la <laughs> yow président nga ni lan moo xew fa <laughs> wala gi naan ma un wala même couleur bi na nga sax alaaji. waaw couleur bii da koo bëgg. non non damaa bëgg bëgg bleu man. dama bëgg bleu man nag la man libéral la. <laughs> Eh, ndeysaan allah ndey Mariam waaye tey la tuddam bi waaye. Eh. waaw ah, waay géej waay la. waaw ah mooy suñu tës ba ka fi sàcc yi duggoon. Ah, am na bébé. waaw amul ba dis ndeysaan. ay yow ndeysaan déggal kii naan ma envoyé ma. envoyé yàlla nit. envoyé ma photo bi. photo costume bi non. alaaj wala kii nii photo bi. <laughs> gis nga gis nga. non nit ñi kii da koo capturé ci Facebook ko jëlee. <laughs> donc kay ku dem Sen TV l'officiel di nga saan 7h30 bi maa leen wax nii. ku dem saan 7 bi nga ñëw wax ma ndax nuróowul ak président Macky Sall am déet. dem leen léegi Facebook Sen TV l'officiel. kenn mësu koo gis. dem leen tout de suite. ngeen xool 7h30 bi. am naa lu ma métti trop. mais moom lay am sénégalais nga xam ne moos. ah. lii laa wax man. lii. man lii laa wax man. non non kii nee na ma nuróowu leen dara. Eh. ah bon. waaw ah. hmm. yow cuune woo yow am na cuune woo fi ngay teg sa tànk ñun ñuy wax ci physique muy wax ci xam-xam. joyeux anniversaire sama doom maam Seydi Diagne bu Maguette Gueye ak ndem si yàlla. Ah. Issa Laye en tout cas daal alaaj. Hmm. Hmm. armeel yi daal war nañ cee wax daal. mu ngi bëgg mu ngi bëgg ëpp de. armeel yii. Hmm. waaye comme que gars yi de bàyyiwuñ benn armeel. bàyyiwuñ benn armeel lañu ñu baw. bàyyiwuñu benn benn benn armeel. am fit rek am fit rek. borom daal. jamono ji ñu toll ni ku nelaw ba yàndoor sax. armée lii ñuy dugg di sulli néew yi tamit lii tam mooy lan waaw loolu tamit loolu tam mënuñu ko criminaliser benn yoon wax ji jeex. Uh-huh. loolu ak rey nu nuroo nuroowul bi laay. Uh-huh. fekk ab néew bu tëdd nga sulli ko ba pare alaaji dagg bopp bi. waaw uh-huh. waaw waaw kooku kooku da nga fekk xoolal fekk ku dee alaaji nga rayaat maanaam kooku yow yow dafa mel ni double meurtre nga def waaw def crime def def maa tay def def lu kenn xamul def lu kenn xamul non oui dimbali leen rek ngir yàlla naan moom monsieur le président la caisse noire soxla bu su li néew sulib néew yow yi néew rek ca malaan ma néew rek denc ba li sama bàyyi doon wax mhm. sërif xataab yéggee ma ko ne kenn du ko miin mhm. alaaji mës ngaa dem rob te doo dégg waa waay waay waay wàññi leen wax ji waay wàññi leen wax ji waaw waaw fàtte nañu yàlla non da ko doon miin mhm. doo ko miin te moo ne te moo ne saay bu dëj amee nga ñëw bokk ci ñu indi néew ba mais dara saay yi boo ñëwee alaaj mu bees ci yow. mu bees ci yow. jël nit defar ko ba mu jekk gas ba mu xóot di dugal moo dul caaxaan. mu bees ci yow ah nit dul caaxaan. <laughs> nit dul caaxaan. ndax daa am valeur ci yàlla mi ko bind. la ilaha illallah. yàlla sàmm. <laughs> loolu ñu sutura. ah moo taxit nag moo taxit nag war nañoo war nañoo war maal ñiy dee de. mën day dëgg dëgg fa yàlla waaru na. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg laaj wala kii itam bi ma ñamal dëgg dëgg fa yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg Facebook ba la ñuy dem. la ñuy dem capturé ko. kenn gënu maa sëkk man de. tout cas day ah sa bàyyi ngay jël chaque jour di ko wutal ay nuroo wala ci mbedd. Ah. lu ñu wax sa bàyyi fi mu nekk nii ci mbedd mi bu la métti te ba ma dégg na xeex nga fi. <laughs> métti kay du ma ko dégg ma yor nopp gar mi. bu ma doon waa wax lu na bu ma doon waa Cambérène nga xam. Hmm? fa lañ lay xaar tey ba nga yegg si. Hmm, hmm. wax lu métti du doog a waxati. SOD nee na mën naa commencé di jël léegi ay mesures alaaji. Hmm. ci réew mi. waaw mën na ne. ak commencé naan l'heure est grave. tey nee naa la xoolal jëkkee ko ci impôt domaine bii nekk foire duggal foofu rek leen eh andi leen may signé. Eh, eh, eh, ba xam kenn du la jox këyit ngay signé ci réew mi. Oh, kon de kon de booy toog may ñëw nga jëkk maa signé <laughs> de la ma maam booy jaaw di yóbbee ci yow. ko fii. maam booy jaay ngay patron. xaw ma waa ji ñas. yaa ko fal di. directeur impôt domaine nu mu tudd. ñas ñas gis nga ci boppam yow yaa ko fal. vraiment maa ngi a nii alaay commencé rêvé sax. mais dëggantaan. mooy yéen. dëggantaan. yow gis ñi nga am ñi amoon xel wàcce leen ci sax xel. Hmm. fi mu toll nii jàppale ñi nga takk seen. yow commencé xoolal commencé dàqe. ah commencé waaw ah, waaw. ki may ak xam boppam. <laughs> alaay. Hmm? ministre bi hmm. kooku moom naa naa ba mu gën a naaj. moo tudd. dinaa la ko dee. kooku moom. wax ma ko wax ko wax ma ko ma wax ko ci kaw. déedéet déedéet déedéet déedéet. yi ministre yi nga xam ne dañ koo football teg ko fële yëpp. dina dama leen a dàq. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. bu yeboo ñu waajal seen bopp. ñu. dig da cangaay te duñu sang. bàyyi leen rek organiser ay meeting. ak fii mbas mi toll. meeting. muy jëm muy jëm. Casamance amoon keroog meeting. Casamance ba ban yan leader ñoo def. Casamance du ma ko wax. ala déedéet ma ko yi nag. moo ko benn ministre na organiser mariage. ki doon may doom. waaw. ah boobu garaawul moom boobu dañu ko yombalal de boobu moom yëg naa ko. Ah, yombalal yombalal xumbul de am de. Ah, alaaj waxal ba xumbul. wala dañoo dañoo dañ ko dañ ko <laughs> <laughs> réew maa <laughs> <laughs> non c'est ko peelu Macky bi laa doon expliqué <laughs> xoolal peel baa ngi peel bi laa yor fii nii. peel ba ah bu doon gasee fële. waaw aw moon peel ma dem jël caméra bi. ah. ba mi ngi doon gas yi trente huit taa dëkk tamit erreur la. <laughs> sunu saar gi mi fekk bi ñuy liggéey erreur la ñu kon yow ci suba gi def nga fi li alaaji. yëpp lay def. man lee léeg su ma teelee pare damay taxaw foofu di seetaan. alaaj dee ma bàyyi xel ne yow tamit booy def yenn yi nag <laughs> alaaj dee ma bàyyi xel yow tamit nag def lii. Cheikh Matar Binta loola de. man ñoom ñëpp maa leen yebal seen TV l'officiel man tamit sikk naa de ñoom ñëpp maa leen yebal seen TV l'officiel. <laughs> alaaj. waaw gisoo masque bi de. alaaj dee ma bàyyi xel booy def ñëw ah, tamit. ah lu tax lu tax. dañ koy tardé. loolu ah. fekk fii ñuy liggéey. ah non léeg-léeg dem ca ba di fa toog. alaaj dem bàyyi ah, man daf may fekk ma nekk fii ci studio yi di liggéey. moo gën ci yéen. léegi dinaa teel a wàcc sama heure di pare surtout temps dama fekk ci studio boobu may seetaan. léegi damay teel taf tafees li may def. alaaj xoolal sa alaaj sa mbokk sa mbokk sàmmkat bi. ay waay ndeysaan. madame Diagne maa ngi lay ziar bu baax sama xarit bi. non. Hmm. Oh, Abi Thiaw nekk hmm. son excellence. non. Hmm. c'est eh, comment traiter suñu tasu tey bi yëpp yàq na bu baax. ah lu ma dem. Fatou Thiam maa ngi lay jaale bu baax suñu papa ji Ousseynou Thiam. Eh, non non am ma met tey trop waaw waaw caméra yi ñu def ci mbedd yi lañu war a dugal alaaji ci biir ci biir armeel yi. Mm-hmm, mm-hmm. caméra yi ñu def ci mbedd yi dañoo war a dugal ay caméra ci biir armeel yi. Mm-hmm. ndax armeel yi tamit li fay xew tamit war nañ cee wax. waaw waaw waaw waaw. Ah, man de jaaxle naa ci yàlla subhaanahu wa waaw wax dëgg yàlla de. waaw kay waay Cheikh Fall. bu Lobat Fall alaaji mu leen di nuyu yéen ñëpp Cheikh. waaw ndeysaan Cheikh baax a baax bu gaan kii demee ah moom de laay wër. mu fi ne dëkk de bi may njëkk a signé moom alaaji. muy am yat muy dal ci kaw nekk moom laa koy jagleel. pour <laughs> lan. xaadimul Moustapha xaaral rek <laughs> réew mi alaaji il faut ñu dégg foog jël fii mesure. foog jël fii mesure. non Macky bi ñu ko falee ba tey mi ngi jëli mesure. te ñawlooguñu ba tey. ba tey julli gu ne nit ñi am ay problème mu kii. moo ba tey ñawlooguñu lii tamit. li nga wax nii dama koy mujj ah, jël place am. baax na baax na. dama mujj jël place am tamit. <laughs> Eh, man leen maa sama xarit bi nee na ma Moustapha Cissé Lo bi xottil na ñëpp. ma ngi ah. jëli mesure. waaye ba tey ñawaguñu. <laughs> ah alaaji yàlla yàlla dolli jàmm ci biir réew mi rek waa jaa ngi ñëw de docteur Ndiaye ngi ñëw. loolu ëpp day jeex ni xaar. ah, ah waaw laaj jeex na nag yow tamit nag alaaji. alaaji teel na. ah ban teel fan. non non lan nga bëgg ñu toog. ah t'as pas encore pris la décision de. Euh, de lan euh, ban décision d'enlever d'enlever euh, enlever ma kenn. état ah, d'urgence bi ak. non non non non du ma Macky du ma makki de. depuis quand déedéet ma ko def. depuis non non depuis toujours. déedéet déedéet. déedéet déedéet nag wax dëgg nag déedéet nag. déedéet nag déedéet nag déedéet déedéet nag. kooku. kooku moom la. ma nga taxaw ah mooy ñëw noonu. voilà yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi. amiin yaa rabbal aalamiin yal na yàlla suturaal. yal na yàlla jàppale yàlla aar. amiin yal na yàlla taxaw. amiin yal na yàlla musal ci seytaane. amiin yaa rabbal aalamiin sëñ Jili nuyul ma ko bu baax te santal ma ko bu baax. waaw sëñ ki ñu te téere téere jaw na fi mbay mbay waaw jógin la tax na tax na tax na tax na mën na faraat mën na faraat buntu boobu bu ah, baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw baax dina ko mën a bu baax yal na ko yàlla fay amiin waaw dëgg dëgg dëgg dëgg mooy mooy mooy mooy kii tàggoo noonu tàggu yëgle yi waaw waaw moom la waaw moom la waaw waaye mujj nañ ko yéewi bu ñu ko yee bu ñu nañ ko yee. mën nañ ko yeewaat li ma li ma ko merewoon lépp baal naa ko dàq nañ ko ba jëmmi jamono. li ma ko merewoon lépp baal naa ko ndax jow xaw na fii. waaye de yàlla doole sutura rek. naa jàpp ci yàlla nag am jom takk de. naa jàpp ci yàlla takk de. yàlla du yàlla taxaw. alaaj ñi seyte am jafe-jafe yi yàlla leen yàlla suturaal jàpp. ñi seyte amuñu doom it yàlla leen yàlla suturaal may ñi jiitu yàlla leen yàlla xare àjjana. amiin amiin yàlla bopp ñi nekk ci kaso yi tamit yàlla leen yàlla suturaal génn jaay si Euh, ñi nga xam ne itam dañuy nuroo léegi ñoo xam ne nuróowu ñoo ñoom bokk ñoo ñoom it yàlla na yàlla àtteeg ñoom na la ñu yàlla suturaal yàlla yàlla jàppale yàlla nu yàlla jéggal comme ni ko yàlla jéggal yàlla nu yàlla jéggal yàlla nu yàlla euh, euh, suturaal sala salam waaw kay waay alaaji Simeer Joob ngi noonu nga xam ne moo fi sama partenaire malheureusement te du wax muy bàyyi ñu may sot moo nekkoon ci xarale gi mantulaay tubandoy sama taaw bu jigéen bi nga xam ne kon moom nag moom mooy nuróoleeg <laughs> <laughs> dugg laa tëgg combat. waaw ah, kay waaw miin maa ko miin meneenatul mën a war a sama xaritu maam maa ngi nii di Alaaji Mansour Diop ana kan la dendal sëtu ko tedd ki maamu barrière or ba ca Médine Banda Sumba ni Xures. Serif Ahmed Aydara Karara monsieur le maire de la ville de Guédiawaye mi ñuy nuróolee koo kee tudd ko nangu. <laughs> voilà di leen jox kon dig daje suba incha allah.